bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmiddin bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu santee borom subhaanahu wa taala julli ci alayhi wa sallam tey jaajëfal asheikhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci xew-xew yu mag yi nu bàyyi ko muy koor gi ak kori gi di balu ñëpp xaq di ko baal ñëpp ñaan sun ba mboolu nu jéggal li dox suñu diggante ak moom ci ay tooñ waaye li dox ci sunuy diggante ci ay xaq it mu wuutu nu ci fayal nu ko fa innahu jalla ala taaka qadir wa bi ijaabati duaa daa in jadir ñaan suñu ba mu nangul nu koor geeg jaamu yàlla yëpp te yàgg na ko fekkeloo fekk gu ànd ak jàmm ak tawfeex a mucc Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi ci sunu kanamit yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér àggale mboolem naalem yépp ak yéenam yëpp ànd ko mboolem taalibe yi euh, ak mboolem kilifa yi ak Seexul Xadim sunu waxtaan tey ñu bëgg ko jëmale ci tomb bu am solo boo xam ne ma ñu wax ne ci tasawuf la bokk te moo di maandu maandu na suñ ko waxee ci diine mooy nga jox boroom xàq ju ne xàqam te ba ma sëkk ba doo ko tooñ dara lu néew néew bañ ko pertal bañ koo tooñ bañ ca ëppal bañ caa yeesal alxuraani soññee bu baax a baax a baax ci maandu googu wone ne mboolem risaalaat samaw yi yëpp mooy mboolem téer yi wàcc asamaan yëpp dañoo soññee ci maandu googu yi wala sax moo tax ñu wàcc laqad arsalnaa rusulanaa bil bayyinaati wa anzalnaa maahumul kitaaba wal miizaana li yaquuma annaasu bil xist nen danoo yónni suñuy ndaw ñu indi ay firnde yu leer nañ ñi waaye boole leen téere yu ñuy indaale te téere yépp nag la muy tegtale mooy wone nit ñi taxaw temm ci matal sëkk seen lépp teg ko ci ak mandu kon man ngeen téere asamaan yépp donte seeni jamono yañ wàcc woote na barab yañu wàcc woote na ñam wàcc ci ñoom woote nañu lé waaye teewut yépp rekk dafa ñëw ngir teg nit ñi won leen aw yoon ba ñu mën a tënku ci seeni mbir yépp e, ci ci ci dëgg akuk maandu teg benn miisaan boo xam ne benn benn benn nattukaay waan ci la ñu natt nit ñi waaye desul nattee nag ci kaw kaw ay melokaan maanaa couleur sàngam ñoo gën couleur sàngam duñ leen natt ci aw xeet ci xeet sàngam ñoo gën xeet sàngam déedéet loolu du ay nattukaay waaye dafa dafa dafa teg misaan boo xam ne dafay dafay yamale ñu teg ñépp ci ak maandu <clears throat> ndax ñépp seen seen seen wàccuwaay moo borom borom subhanahu wa mi nga xam ne gënal lu wenn xeet ci kaw ci kaw yeneen xeet wala kenn nit ci kaw keneen nit lu may ca jikko ji wala wala wala jëfe wala melokaan wa wala su mboon di wax ne inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa itaa idil qurba wa yanha anil fahshaa wal munkar wal baxyi ya'izukum la'allakum tadhakkaruun yàlla dafay digle maandu waaye dafa digle itam rafetal maandu mooy li ma wax léegi mooy bañ a tooñ kenn ku ne nga jox ko xàqam ba ma sëkk ihsaan nag mooy nga bañ caa yam bañ yam ci jox ko xàqam waaye dolli ci leen loo xam du xàqam yaa koy baaxi te yàlla tax ak nag borom jege bu nekk sa mbokk mu ne nga jox ko xàq jamu yàlla ci yow waaye tere itam njaawteef ak lu ñu sib ak ak ak mbewte lépp nekk ay waar yi xam suma suma band ko waar jullit ñi Saïd nee na xataada dafa wax ne wax ci sunu wax ni laa ya in la yamru bil adli wal ihsaan nee na amul jenn jikko ju rafet joo xam ne ahlul jaahiliya muy ceddu gu njëkk daanañ ko daanañ ko jëf te daa ko rafet lu may sunu boom digle na ko amul jenn jikko ñaaw joo xam ne daanañ ko def te di ko ñaawle lu may ne sunu tere na loola waaye kon mooy dafa tere mboolem jikko yu suufe yi waaye tere mboolem jikko yu ñu ngàññ yi te sunu boom digal digal jaam ñi ci maandu ak yamale waaye tere mbewte ak noono ci diggante nit ñi kon day mel ni jublu sharia ci lool rek mooy taxawal maandu ci diggante nit ñi maandu nekk lu am solo lool loo xam ne dafa solo si mu am nag mayees na koo xamee ci anam yu bari siixab digle gi mu ko digle nga xam ne nusus charia yëpp mboolem yi eh, liñ bind ci charia lépp ñëw na di wone am solo ak maandu googu wax li sunu di wax ne yéen ko yaamurukum an tuwaddul amaanaati ila ahliha wa ida xakamtum bayna naasi an taxkumu bil adl yàlla daf leen digal ngeen di jox woroom xaqi seeni àq ngeen di matal kóllure ca ña ko moom su ngeen di àtte nit ñi ndege leen àtte ci dëgg ak maandu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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول رسول الله حي على الصلاه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sunu ni muy diglee maandu ci jëf noonu la ko diglee ci wax kuy wax na wax maandu ca wax ja wa ida su ngeen di wax na ngeen maandu ca wax ja noonu la ko diglee ci koy bindeet booy bindeet nga maandu ca bind ma wala yeegtu baynakum kaatibu bil adl wane ni itam noonu la moytandiku loo itam ñàkk ndax dafa wane ne jiitoon sa sun bam alag leen lay saabus alag gam leen alag mooy ñàkk ñàkk ñàkk maandu ko rek wa tilka alqura ahlaknaahum lamma zalamu dëkk yooyu ñu alagoon yi la tax ñu alag leen mooy bañu ñu tooñe rek mooy ñàkk maandu fa ay min xaritin ahlakna ahlaknaaha wa hiya zalima ana ñaata dëkk laa alag man yàlla te saba lay sabab ma alag leen rek mooy tooñ gu ñu tooñ kon lislaam dina maandu la li fi nekk ci ay xàq yu war a sàmmonte maandu gi maandu nag am gi am solo tax na lislaam da ko soxla ci lépp moo tax suñuy tànn imaam ku maandu la ñuy tànn maandu ab saat la ci imaamatu suñuy fas ab sëy ñu ne lu mu néew néew na ko ñaar ñu maandu seere suñu séq lu jëm ci bor nañu ko bind te ñaar ñaari góor yu maandu seere ko su jafee génn góor gu maandu ak ñaari jigéen yu maandu suñuy séentu weer su ñaar ñu maandu waxee ne gis nañ ko na ci ñëpp sukkandiku woor mbaa ñu wori su dee weneen weer ñu jàpp loola ba ci mu daarante gi lislaam santaane sax ñu mu daarante ko ak ñi nga xam ne bokk bokkuñu ñoom diine dañ caa sart sopp ca ka koy def doon boroom xam-xam bu maandu wala lahu soxbat fasiqin wala xultatuhu li xayri durrin musjala wa man yusharikum huna fi izzihim yakun sharikahum gadan fi dullihim wajtanibu xultata haulaai li annaha min aqbahi l ashyaai lakin mudaaraatuhum xadnu dibat kama bi nassin fi xadisin xat xatabat wa xadduha irdaahum bi gayri ma nuhiya makruhan xulaw muharrama daa ca teg ne walam taliq illa li aalimin kamil xat kaana za adalatin wala yamil fal aalimul jairu laa taliqu bih wa mislul jaahilu aydan fante bi maanug lislaam nag daf lay topp ba ci sol wenn daal di ko doxee sax mu tere la ko ngir ñàkk maanu gi gi ci am ci ñaari tànk yi mooy jox nga tànk bi xàqu ji jox tànk ba ca des dina tere nga xaajale sa jëmm ci diggante naaj ker parce que jox nga xaaj bi àqu ji jox xaaj ba ca des dina tere nga gaañ sa bopp gaañ ab cër ci sa jëmm ci dagg ko wala bënn ko wala lakk ko ci ak jublu ngir du ak maandu ba tey lislaam day sàkku ci kiy jaay mu maandu ca la muy jaay awful kay la wala takunu minal muxsirin te leen matal seen peese te bañ a bokk ci ñiy pertal wasino bil xustaasil mustaqim wala tabxasu na ashiyaahum wala tansu fil ardi mufsidin wax feneen ne wa waxaat feneen ne wa aqimul wasna bil xis wala tuxsil misaan ni sam di sàkko cew maanduk jëf ni lay sàkko cew maanduk bàyyi te mooy lépp loo xam ne sa yoon néewu ca wala amuloo la njariñ nga maandu ca te loolu ci diine la bokk diine ju rafet la bokk moo tax salaa suñ di wax ne yéndu salaa suñ di wax ne min xusni isaay ma la yaani bokk na ci rafetuk diine di lépp lu lu ko njariñ mu bàkku sëñ Abdul Ahad Mbàkke da daa wax ne ak dëgg su dëgg ba noppi bala nga koo wax na ca benn ci ñett yi daje na ca benn ñett yi am na ca so yoon nekk mbaa ñu laaj la ko mbaa nga yilif ña ngi koy ña ngi koy waxal mbokk dañu maanduk bàyyi googu alali jaambur jumla booliwut nga maandu ca derub jaambur nga maandu ca bañ ko yàq derete ab julit nga maandu ca moytu lépp lu koy tuur saa sa neew na kullul muslimi al muslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa ardu sëñ Abdul Ahad Mbàkke daana wax ni ni ku nekk war naa xàmmee li mu moom ak liñ ko boole ak li mu doonul dara li mu moom mu téye ko bu wér li mu bokk mu dee ci diisoog ñam ko séqal li mu doonul dara yoonam bañ ca nekk maana ko demal bi ci sa digganteeg mala yi sax rëbb bu lekk dagan na ci mala yi dagan na lekk waaye ray aw rab ci lu dul aajo ak tooñ la yépp rab bu dul lor dañu bañ ko ko rey ba ci yooyu kër yi ki mbott wala xorondoom sànqaleñ yamb wala njugub wala janaab baa yu demee ni ñoom ba ca dagg garab te tawma ci soxla sax yooyu yëpp ci ak ñàkk la bokk lu yaatu la dañ ci desuwaat incha allah ñëw ci euh, euh, xutba bi imam war jàng ci kanam tuuti incha allah xutba bu njëkk bi dafa tàmbale ci euh, sant yàlla eh, maa ngi sant yàlla wax ne gannaaw gannaaw gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi salaam dafa ne li gën ci waxtaan mooy téere bi yàlla bi ngeen jig njub mooy njubu muhammad sallallahu alayhi wa li yées ci mbir yi mooy yañ ca sos ndax lépp lu ñu sos bidaa la te bépp bidaa ak cànkute la te cànkut cànkute gu nekk sawara li jëm na ngeen xam yéen jaam yàlla yene li gën ci lu ngeen di jël lu ngeen di jàpp ab jokkuwaay fa yàlla subhanahu wa taala jëm ci yàlla ak ngërëmam mooy wéetal ko ak saxal di ko sant ak di ko tagg ak ñoŋal ay dénkaaneem yéen leen dénk ci ay ndigal ak i tere ngeen di ko ñoŋal di sàmmante moom ak taxawal sharia am ca waxtoom ya ya ya mu ràññ ko ak melokaanam wañ ko xame melokaanam ba mu baaxoo te lépp ñu dëppale ko sunna si sunna si yoon mi nga xam ne mooy ki mooy mooy ki mbir mu nekk nañ ko war a defee ci waxtu yépp nag muy ci subay ak ci ngoon yi dangeen ngeen ngoy ci buumu yàlla gi te bañ a teqali ko wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu ne maa ngi leen di moytandikuloo itam ngeen di léewaatoog yàlla bi nga xam ne mooy kenn tey ko noonu ñëpp léewaatoog yàlla nag mooy ne ci mooy di ko moy ak xët ay ay ay tereem wala woyofal ay ndigalam ci jamono ju mën a doon wala ñenn ci yéen di jël ak tooñ di ko jëmale ci ca des moo xam ak tooñ li wala ak mbewte sunu borom nee na bu leen topp jéego seytaan yi ndax ku topp jéego seytaan yi kat seytaan ci musiba la jëm ndax seytaane dafay digle lu ñaaw ak lu ñu sib ñëw na ci xadis ne kenn ci yéen gëm yàllaam du mat lu may dafa bëggal mbokkam lëm bëggal boppam Buxaari am su ko ci ne solo na ko mu ne yàlla na yàlla defal tawfiq defal leen ko ci topp ci topp ko te sun ba matal sunu gàttañlu ci njëggalam ak lewetam ak ci nangu gu rafet yàlla na sunu ba nangul nangul leen ci ci ci ngëneelam ak tabam ak teraanga ba amin xutbam ñaareel bi mu maa ngi sant yàlla mi nga xam ne wéet na ca nguuram ga ak desam ga sun ba mi nga xam ne mooy aji sell ji nga xam ne ku set wécc la ci ñàkk gi mu ñàkk tàmbalee fenn te bët du ko gis sunu ba mi nga xam ne moo àtte moo tëral ay àtteem ci kaw ay bindeefam te àtteem kenn du ko tebbi la mu dogal it kenn du ko kon kenn kenn du ko wëlbati suñ boobu moom yi moo séddale wërsëg yi séddale digg yi ci biiru jaamam kii mu xañ ko kii mu jox ko kii mu texeel ko kii mu texee dil ko maa ngi koy sant nag ci lim joxe te seere moom rek kay buur kenn du ko bokkale keneen seere koo xam ne seere goo xam ne ko seere ne ku ko seere dana jot ci mébitam te seer yi na Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ndawam te te te ay mooy sangub ay yonentam itam yàlla su moon dolli xéewalu mucc ak ñooñu ak saxaabam eh, xéewalu mucc goo xam dafay sax di taqoo ba ci bis ba nga xam ne ci lañuy gaaral jëf yi bis ba ñu dajaak moom mu ne gannaaw loolu yéen nit ñi maa ngi leen dénk ragal yàlla ndax ki texe mooy ki ragal yàlla di leen moytandi ko looy moy ko ndax ki ki perte te mooy kiy may bor kiy mooy boroomam na ngeen di ko topp ndax ci topp ku ci la ngërëmam nekk di leen moytu di leen tere itam ngeen di topp bànneex ndax ki sànku dëgg mooy ki topp bànneexam maa ngi leen digal itam ngeen di gaawe ak tuub balaa ab diggam a weesu te ngeen xam yéen jaam yàlla yi ne képp ku fàttaliku yàlla yàlla fàttaliku la donte yàlla du fàtte ne lépp lu ngeen jiitale seen bopp suñu borom moo lépp lu ngeen jiitale seen bopp ci aw yiw da ko fekk fa yàlla subhanahu wa taala na ko seen jamono jii nag ndax jamono yoo xam ne lu baax néew na ci lool te natt yu bari ci lool kenn ku nekk ñun mi ngi def yitteem yépp ci sàkku àddina yi kese waaye sàggan yépp sàggane faatu te amul menn pexe muy tax a topp wala kat wala kàttun guy teemooy lu may dafa bàyyi ci koy ci yàlla subhanahu wa nee na diina mujj na tumuranke lool ba mel nam meloon ca ba muy door a tàmbali mu ne kon maa ngi metteetlu ci di di di di feesal sama sama néew doole sama néewum pexe ci li am ci bis bi nga xam ne bis ba nga xam ne ca la mboolem ñaawteef yépp di fees ca lay feeñ bis ba nga xam ne ci sunuy cir dafa ni seere te koy àtte ëllëg mooy yàlla bis ba nga xam ne bakkan ci ameel moroom bakkanam lenn te mbir yépp ca bis boobee ci loxol yàlla rekk lay nekk ñëw na ci xadis ne arba min ashaqaawa jumudul ayni wa xaswatul xalbi wa xirsu wa tuulul amal nee ñeent yi ci texe di la bokk mooy wowu bët mooy ñàkk kersa ak wowu xol ak xir ak bari mi ñëw na ci xadis ba tey yun saa sam wax ne yàlla dafay yàlla dafay tàllal loxoom ci guddi gu nekk ngir jéggal ñañaawal ca bëccëg ba di tàllal loxoom ci bëccëg bu nekk ngir jéggal ña ñaawal ci guddi ga mbakeeroo jant bi fenke fa mu soy fa mu daa soy mooy ba ba àdduna tukki rek yàlla na yàlla jéggal te jéggal leen digal mboolem julli yëpp yàlla na su ma bool dimbale bool defal tawfiq xiir na ci njub te saxal na ci te def na dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يصعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عناده وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة بالتوبة إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون inna allaha yuhibbu at-tawwaabiina wa yuhibbu al-mutatahhiriin wasbiruu calaa iqaamati faraa'idihi allatii faradahaa calaykum dacaakum bihaa ilaa hadratihi liyukrimakum واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها akbar min axawaatiha wa ajallaha li anna maqaamaha fi lcibaadaat maqaamu rrasi fi ahdaai daat fa farriquu laha alquluuba maxalla nadari rab wa tahhiruu laha siyaaba والأجساد تفوزوا بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على خمس shahaadati an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa iitaai zakaati wa xajji lbayti wa sawmi ramadan الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه المشكور فيهما بالجم من نعمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق والطي الباطل سيدنا محمد وابل الخير الهاطل وعلى آله وصحبه الذين صيروا ديد الشرك شر عاطل الذين بذلوا للدين حقه بلا مطل ماطل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث